moom mi Pape Diouf tàmm woon joxoon ko lépp luy fiche de parrainage mu jëm si mboolem zone yi nekk si benn bokk yaakaar tey jii mi ngi wane ni kat loolee mate na ko ginnaaw bi mu ko distribué mboolem responsable ak it mboolem entité parti bi teewee tamit ñett sorti yi nga xamante ni moom Pape Diouf teew na fi ngir recevoir les parenage El Hadj Aliou ñëw na pour la troisième fois indiwaat ay parrainage am tey jii mu ni kat satisfaction total la si am ndax liggéey bi ñu ko joxoon mate na ko te nag mboolem zone yu benn bokk yaakaar def nañu seen parrainage loolee doon lu muy rafetlu. sant Pape Diouf mi nga xam ne moo ñëw teewe yëpp suñu troisième fois mu ngi nii ñu andi ay parrainage mbir nag boo koy boo ca nekkee ubbi ko nga dem ba yàgg nit ñi gën la koo bëgg kon da ngaa war alhamdulilah rabbil alamin bu njëkk bi déposé nañ lu nga xam ne yaakaar naa loolu rek war naa doy département bi ñu ñëw suñ deuxième fois ànd ak collectif yëpp déposé li nga xam ne war nañ ko am troisième fois bi li ñu déposé rek war naa mën a yor département bi mbir nag su fekkee da bëgg mu baax da ngay jàpp rek ci barke di ñëw de. mi ngi woti ouverture ñu gën a yaatal parti bi waaye tamit boole seen xol ak seen doole liggéey pour l'intérêt de benn Bokk Yaakaar loolee sax bokk na si collectif bi ñu taxawaloon tënk si biiram fukki zone ak benn mu rafetlu ko loolu moom El Hadj Aliou li day firndeel ni kat sage bi mu doon ak cëréel bi ñu ko jox si biir APR tey ji mate na ko. xam nga politique boo koy def war a def ku bëgg rek da nga ko war a tàllal say loxo ni ko ñëwal ñu ànd def li ñuy def parce que yaakaar naa àndandoo def li ngay def mooy tax li nga bëgg nga mën ko am mais bu ku ne awee ci barab rek kenn ku ne di jéem a buux sa morom li ñuy bëgg duñ ko masaam responsabilité bu demel tax na soxna Fatou Bintou Pouye ba fa teewoon rafetlu ko sant ko loolu si biir ña fa teewoon ndax gis na kat àll mii de modèle la si bépp boor. bàyyi àll si la maa ngi lay sa na la yàlla defal jàmm defal la salaam defal la tawféex. ñu gën a. Pape Diouf également approuvé liggéeyu parrainage yi Touba amal mu jàpp ni taxawaay bu am solo la li des mooy nag xeex ngir am victoire au soir du 25 février 2024. des nag moo di ne parenage bi baax na waaye li ci des mooy nan jógaat jóg bi mooy nan fexe ba gindalikoo ma ne dama ko yàgg di wax nan ànd fii dara lu ñu xëccoo amagu fi xam nga kañ la xëccoo di am. ker bu ñu gañee ba fal suñu candidat bu boobaa ku ne dina mën a yëkkat sa kàddu nangam ak nangam ñu seetlu war ci yow bu ko ñu defal la ko. El Hadj Aliou Sylla lu tollook fukki zone cërale woon ko joxoon ko seen kàddu ngir mu jébbal pare naa yi fii si Mbacké waaye tamit boole koog moom zonam liggéey ci liggéey bu am solo. ànd seeg également mboolem responsable yi femme jeunesse ak it ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi koy jàppale si wàllu politique ne nag étape bi bu ñu ko weesoo li des mooy defaat yeneen xeetu liggéey ubbi permanence Mbàkke xoolaat base de données am activé ko ngir 2024 ñu mën a yokk seen ay voix waaye nag mi ngi biral ni lépp lu mu pare ne moom dina fexe mu nekk ay xob buñ ci àggee.